yaa ni ñuy dundale weeru koor gi fii ci résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Touba xalaat la ak ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ki moom Serigne Bassirou xalif général de Mourides depuis 2018 di événement boo xam ne dañ koy diffuser en direct ci chaîne de télévision yu bëri ak presse en ligne bi loolee moom moo tax Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne moom lañ denk liggéey bi seen direction général bi jël ay matuwaay yu am solo yaatal liggéey bi jël mboole matuwaay ci war ngir diffusion bi mën a yaatu. direction général bi nga xam ne moom ci liñ aju muy direction générale bu Hizbut Tarqiyyah jël matuwaay yu am solo ngir euh, jàppandal. Euh, jàppandal ñu jumtukaay yi nga xam ne ñoo mën a tax ñu mën a ñu mën a ñu mën a couvrir loolu loolu li ci jiitu mooy euh, teg dispositif boo xam ne fii ci kër gi dina permettre ñu mën a euh, couvrir événement bi maanaam dispositif de télévision ay caméra ay régie professionnel yoo xam ne dina tax ñu mën ko couvrir ci qualité bu am solo ba pare teg dispositif de transmission yi nga xam ne tamit lu mel ni internet lu mel ni ay faisceau fexe ba. Euh, signal bi ñu mën koo joxe mën koo tas mboolem fu télévision nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu mën a fexe mu jot ci. salle bi nga xam ne ci la ñuy amalee njàng mi organ de presse yi ñëw ngir bëgg a couvrir événement bi mënuñu fee nekk ñoom ñëpp moo tax ñu nosee ko noo xam ne dañuy génne benn signal bu neutre mboolem organ de presse yi ak fépp fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew daañu am possibilité mën a diffuser événement bi en direct te duñu déplacé wu. xam ne yemul yemul nañu ko ci ci ci murid rek waaye fu mu euh, nekk rek te te bëgg a dund euh, événement bi. moom njëkk nañ ngir ngir jox la signal bi kon ay signal yu neutre yoo xam ne dañ koy dañ koy génnee muy RNTP ñi nga xam ne tey faisceau la ñu soxla ñu génne leen signal faisceau ñi nga xam ne ñëpp ñoom ci YouTube lañ mën a jël ngeen mën a mën a jàllale seen liggéey kon yooyu yëpp day liggéey boo xam ne disponible na. fii ci Touba ci résidence Khadim Rasoul am na fi salle boo xam ne dañu ko jagleel presse bi ngir ñuy mën def seeni diffusion mu am internet bu am doole ak lëkkaloo goo xam ne am na ci liggéey bi mu nekk booloo goo xam ne ñëpp ko ko rafetlu. liggéey bi nga xam ne sëriñ bi digle na ko ci résidence bi te Hizbut Tarqiyyah di ko jiite ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ci ku ci nekk indi sa matériel jël lien yi nga xam ne génn nañ ko mu doon ay lien yu neutre fas yéene ko ànd ak ñoom ci wasaare yiw wi nga xam ne mi ngi bàyyi ko fii ci kër gi ci di ko def ay direct waaye it di def ay reportage di di di monter di partager entre ñun ñi nga xam ne ñooy nekk fii entre technicien waaye entre tamit organes yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i yitte ñëw fii fas yéene yaatal liggéey euh, liggéeyub sëriñ bi. liggéey la boo xam ne bañ ko dooree ci at mu njëkk ma euh, muy 2018 ba léegi ñu ko ànd ak sëriñ Mountakha di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér. ndax dafa nekk liggéey boo xamante nii ndax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk fii ci Touba euh, dëgg la naam ñëpp mënuñoo ak si résidence waaye ñi ñëw résidence tamit ñëpp mënuñoo dugg ci salle bi nga xam ne fa la ñu amee lañ njàng mi moo tax ñu organiser ko noo xamante nii même presse bi bu ñu leen bàyyi woon ñoom rek ñu dugg ci salle bi day fees moo tax ñu organiser ko noo xamante nii kenn ku ci nekk euh, foo mën di nekk moo xam ci biir réew mi ci bitim réew danga nga mën a am signal boo xamante ni signal neutre lay doon nga mën a diffuser li nga xam ne moom mooy am ci biir salle bi te it mbatuwaay yëpp ñu jël ko ba nga xamante ni liggéey bi euh, yoonu murid moom ñu ñëpp ay taalibe lañ tey liggéey bi def nañ ko noo xamante nii kenn ku ci nekk dana jàppale sa morom ci loo xamante ni moom bëgg te mënu ko am ndax euh, weeru koor nekk na weer woo xam ne événement activité day bëri lool ci dëkk bi di Touba te amul benn organe boo xam ne mën ngaa lépp amu fi donc kenn ku ci nekk kii day jàpp fale kii jàpp fale kii bu ko defee ku ci nekk buñ ko boolee rek nga mën a am li nga xam ne moom mooy am ci dëkk yëpp moom moo tax liggéey bi ñu tënkee ko noo xamante ni lépp lii xew ci dëkk bi moo xam conférence yi la moo xam ndog yi la moo xam njàng mi am fii résidence la ak ak ak naafila yëpp danañ ko mën a am en temps réel donc mu nekk liggéey boo xam bu ñu rafetloo bu baax a a baax di bu baax a baax nga xam ne ñoom ko àndal muy mboolem organe de presse yi nga xam ne ñoom it à chaque à dañ ciy def liggéey bu am solo. mu ne ñi ngi ci ngi ci liggéey bi ko ànd ceeg presse bi yëpp ndax fii ñëpp a ngi fi dëgg yàlla nekk ay jàmbaar baax a baax a baax daal ñi ngi sant yàlla bu baax daal chaque année nag ba ko sëñ bi diglee ba léegi te nag duñ bàyyi mukk fii sëñ baa ngi koy digle rek ñu koy def ndax ñun moom ndigalul sëñ bi rek moo ñu fi bàyyi quoi ndigalul sëñ bi rek li ñuy wéyee. at mu jot bu bi sëñ bi joxee ndigal li waa Hizbut Tarqiyyah si liggéey bu solo bi nga xam ne dañuy dundal koor fii si njàngum xasida bañ ko joxee ndigal boobaa léegi ñu ànd ko ñun mbokk taal bi nga xam ne mooy site internet yi nga xam ne ñoo nekk si Touba yëpp di ko ànd ak mboolem waa Hizbut Tarqiyyah si liggéey bi ak mboolem waa jumaa ji ndax doo xoolee salle bi ñu nekk doonut euh, njàngum xasida mi rek lañ fi jàllale waaye ñi fi toog ñëpp ñu ngi jàllale mboolem programme diine boo xam ne ñu ngi koy amal fii si koor gi mu ngi mel ne daare kaamil muxadamatu xidma ak yeneen waxtaan yoo xam ne waxtaanu diine la ku ne gis na ni interview wala conférence bu am li fi dajee ci ay ay ay caméra wala ay organe moom dana demee noo xam ne kenn ko mën a gérer te léegi nii ñu koy defee nii day day ndimbal wala day tawféex joo xam ne xëy na suñu borom defal nañu ko Euh, di nga teg dispositif boo xam ne tey lu jar télé yëpp du ñëw te boo ko installé ba génnee sa sa signal neutre moo xam muy RMTP wala boo amee signal faisceau wala wala nga joxe sa signal YouTube neutre boo xam ne fu waay toll mën ko am kon loolu day doon ndimbal loo xam ne télévision yëpp mën nañ ci mën nañ koo jëfandikoo yi ci biir réew mi ak bitim réew te qualité lay doon boo xam ne qualité bu bu fu HD lay doon kon loolu tamit xéewal la goo xam ne suñu borom defal nañu ko di ci sant Sëñ Tuubaa bu baax a baax. ci biir weeru koor gi fii ci Touba activités yi dafay bëri lool ba tax na benn organe ngir nga mën a couvrir activités yooyu yëpp du yomb liggéey boobule li muy bëri bëri benn organe de presse yëgul diisaay bi ndax doole yi ñu boole. fii nag moom ñi fi nekk ñëpp benn lañ ndax kenn ku nekk da nga jël sa morom def ko ne sa bopp ndax doo xoolee jëmu ji nekk sama wet ni di Sëriñ Muntaxa nekk fii nekk sëriñ bi euh, yaatal nañu fi baax a baax ndax lu si bëri bëri si ak jàpp ndalam si la amee. loolu nag ñu ko baax a baax di sant mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ fa bokkal nekk ndax liggéey bi moom da dafay dafay yomb daal ndax kenn ku nekk da ngay mm-hmm. loo xam ne manqué nga ko sa morom dina la ko loo amut doo demee sa morom mel ne sa sa say fi bopp la loolu nag boole giñ boole nekk benn te lépp ñu seedal ko jëmi Sëriñ Tuubaa ji rek loolu moo waral lépp di ñaan suñ borom gën ñoo euh, sàmm dëgëral ñu ànd bi ba nga xam ne lépp loo xam ne pexam seytaan rek suñu borom mosal ñu si da nga ci gis booloo goo xam ne ñi nga xam ne ñi ngi fi booloon nañ ko ndax fii doo boo ñëwee doo xàmmee ku moom machine bi wala ku moom caméra bi wala ku moom micro bi wala ku moom lii lu waay soxla da ngay ñëw jël bu fi libre nga jël yóbbu parfois da am ngànt sax du a ñëw waaye ñi fi toog ñoo koy lancé direct day woote rek ne ah gars yi lancé leen ma gars yi lancé ko direct su paree ñu arrêté ko kon nag loolu moom loo xam ne ñiy yëngu ci presse te nekk ci bi war nañ cee jàngee ndax ak booloo la goo xam ne ci daal lépp ci weeru koor gi waaye it baatinub liggéeyal sëriñ bi moo ko moo ko indi daal. suñu borom dimbali nañu ci ba mboolem chaîne yi nga xam ne tey jii ñoo aju ci yoonu murit nga xam ne mbirum sëñ Tuubaa moom moom mooy seen mooy seen mooy seen guddeeg bëccëg lëkkaloo nañu joxande seen loxo euh, ngir mën a couvrir événement bi kon mu nekk liggéey boo xam ne ñëpp ko àndandoo nekkul almurid yi rek déedéet waaye almurid yaa ngi fi Bichri ngi fi Lamp Fall TV ngi fi mboolem chaîne yi ndax ku lim juum waaye du ma du ma lim waaye ñëpp daal nga xam ne ñëpp a ngi ci. ngir mën a euh, joxante joxante suñu loxo couvrir événement bi fexe ba mu mën a mën a jàll ci mboolem seen yi. fii ci grande mosquée bu Touba ñoom it jël nañu ay matuwaay yu am solo ci wàllum yaatal mboolem activité fii am jëm ci conférence yi naafile yi ak ndog yi ñoom it ci seen régie bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji dañuy génne benn signal neutre mën koo jox mboolem organes yi nga xam ni dañuy bëgg a diffuser mboolem liy xew ci biir jumaa ji. comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def ci weeru Euh, xam ngeen ne communication bi nga xam ne mooy daayira Muqaddamatul Xidma dafa jël ay matukaay yu am am solo ngir euh, waxtaan yi nga xam ne moo fi am moo xam naafile la moo xam waxtaan la moo xam dog yi nga xam ne moo fi am danañ fexe ba mbooleem organes yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak yi nga xam ne nekkul sax ci gox bi fexe ba ñëpp mën koo am ci anam goo xam ne anam bu gën a rafet gën a baax lay doon euh, gis ngeen ngeen yéen a ngi ci yi nga xam ne mooy euh, saalu euh, technique bi euh, fii la xam ne yi jàll yëpp fii nga xam ne fii lay jaar doog a jàll fi nga xam ne moom la site yi nga xam ne mooy mooy topp ñooy am liens yi nga xam ne ñoo fi ñoo fiy jugee ñu mën koo am ci anam gu gën bépp site wala télévision bu bu bu jokkoog barab bi rek danañ ko yónnee lien bi nga xam ne mooy transmettre direct yi nga xam ne moo fii moo fi jar. nit ñi dundalee koor gi fii ci résidence Xaadim Rasoul njàngum xasida gu yaatu lay doon loolee laaj sonorisation bu mucc ayib te am doole moom moo tax waa daara Hizbut Tarqiyyah jël nañ ci ay matuwaay yu am solo ngir kuréel bu ci jàng bu ne son bi génn mën a mucc ayib. li ñu jëkk na def mooy ci li war kër sëñ Tuubaa gi fexe woon nañ ba haut yi waroon kër sëñ Tuubaa gi. Euh, ci biir euh, mbaar mi nga xam moom lay jàng tamit fexoon nañ boo xam ni defoon nañ ci ay retour yoo xam ni bu nuy jàng euh, jàng bi dina nit ñi dina mën a dégg te du leen sonal yenn sonn yi di leen te du leen sonal. te wàllu installation yi daal wax dëgg yàlla defoon nañ ko noo xam ni fépp fépp bépp nit boo xam ni nekk na ci kër Sëñ Tuubaa gi bu dul ci biir kër Sëñ Tuubaa gi sax biti biti boo nekk ci biti rek. fexe na ba xam ne boo nekk ci biti avant ngay dugg ci kër Sëñ Tuubaa gi fexe nan ba boo nekk ci biti di nga dégg njàng mi. waa sonorisation seenub liggéey yem rek ci génne li nga xam ne mooy am ci njàng mi waaye dañ ci boole ay animation yoo xam ne ci journée bi dañ koy def ci yenn waxtu yi. bu nu xëyee dañuy jëkk def animation bu mi animation mi daan commencé midi bu commencé midi ba une heure dañuy arrêté bu arrêté bu ñu jullee tis ba pare nu continué waat bu ba 4h20 nu arrêté. diggante boobu nag euh, doo amal animation léegi nag diggante boobu bu ñu jullee takkusaan pare léegi dañuy daal di xaar nekk waajal kuréel bi war a jàng bu ko defee day fekk ñu dañ leen natuwaay yëpp pare. kuréel boo xam ne mooy gàttanu sëñ bi foofu tamit amoon nan micro boo xam micro ACF moo fa nekk boo xam bu bu ñoom mi ñuy jàng jàng mi day biir salle bi tamit fexe nañ ba xam ni ñi fiy jàng ñëpp fexe nañ ba jël suñu matuwaay ba xam ni kuréel bi. Euh, nombre bu toll rek amoon na nañu yéene kenn ku ne da am micro xam ñun limu limu limu trente personnes lan njëkk naa jàpp ci nga xam ne moom mooy kuréel bi. am na kuréel yoo xam nag du mën a mat trente personnes ay vingt lay doon wala vingt sept matuwaay yëpp jëloon nañ ko ba nga xam ni lépp loo xam ne laaj na ko ci waa kuréel bi def nañ defoon nañ ko. léegi éléments yi nga xam ne moom ñooy jege kuréel bi fi ñuy jàngee. loolu seen liggéey lu am solo la ndax euh, kuréel bi suñ suñ toogee daanaka ñoom du mën a orienter seen bopp micro yi léegi éléments sunu yooyu nga xam ñooy nekk jege jege kuréel bi ñoom bu kuréel bi xasee toog rek ñooy orienter micro yi ba nga xam ni léegi nit ki suy jàng dina mën a jàkkaarloo micro bi ndax nit ki su fekkee day jàng te jàkkaarloo ak micro bi wala micro bi sori ko léegi qualité son bi nga bëggoon doo ko mën a am. mooy waral léegi euh, élément sono yi di di di sës ci kuréel bi ba pare kuréel bi du toogee am ñoo xam bu ñu toogee tamit dañuy xaw a dese fàtt te son dafa nekk loo xam ni boo farluwul ci wàllu kuréel bi moo na fàtt ak micro mën na la jege yooyu yëpp bu amul rek. li nga bëgg ci qualité son bi day des. mbooleem événement yi am ci dëkk bu sell bi di tubaa ñu koy tasaare ci àddina bi yëpp jàmbaar yi ñoom ñoo koy liggéey lépp ñu boole ko mu doon benn booloo gi nag su amee kenn rek lañ koy sante muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides ñu koy ñaanalaat mu gën fee yàgg lool te gën a wér.